très très ravie de vous retrouver mesdames messieurs bonsoir di leen di dalal jàmm ci seen émission seen show euh, fas yéene waxtaanee nu ñu koy defee comme à chaque fois euh, ci li gën a fës ci wàllub actualité bi alors tey euh, pour en parler sur ce plateau ñu am mbégte dalal maître Moussa Diop président bu jot na waaye itam avocat à la cour ñu ngi leen nuyu maître di la dalal suñu plateau. merci beaucoup Khady di la nuyu di nuyu waa di commencer waxtaan bi di souhaiter bon et heureuse année à tous les Sénégalais muy vivre fii au Sénégal mais nga également ñi nekk bitim réew di ñaan yàlla également que année deux mille vingt trois bi nekk vraiment une année de lucidité mm-hmm. dans tout ce qui va se prendre comme décision si suñu réew mi di jaale aussi ñi nga xam ni seen bakkan rot na ci li nga xam ni arrivé nañ ci fan yi mu bari lool nag ci Sénégal mooy mm-hmm. accident yi mais plus particulièrement li metti li arrivé ay ñibbi donc ñu ngi ciy jàll famille yëpp di leen masawu di ñaan yàlla également que ñi nga xam ni blessé nañ ci yàlla def de sorte que ñu mën a jóg rapidement évacuer à leurs occupations. Mmh. mu ngoog euh, dinañ ci onde également ci émission bi ak Mouhamed Diop Mouhamed bonsoir. bonsoir Khady ñu ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur Sen TV yëpp yi taamu waxtu yi ngir seetaan fi seen émission seen show di nuy également sunu invité bi maître euh, Moussa Diop di am mm-hmm. mbégte lool dalal ko encore fois ci Sen TV di ko wax ne namoon nañ ko. <laughs> ça c'est clair mu ngoog ñoom la ondal ci waxtaan bi door incha allah léegi léegi. alors dañu koy euh, dooree li maître tudd léegi muy accident bu metti bi nga xamante ne moom moo amoon dimanche fële sa euh, si kilo euh, bilan bi sax gën a diis en ce moment ñuy wax ne lu tolloo 41 personnes ñoom ñoo si ñàkkagum seen bakkan ndax beneen blessé boo xamante ne tey kon mujj na wuy ji suñu borom maître yow mu secteur transport muy secteur boo xamante ne xam nga ko bu baax a baax tey bi nga gisee accident bu ñu mel. ak nombre de victimes yi mu def euh, nan nga ko euh, ban euh, sentiment nga ci am. bon xam nga ce qui s'est passé. Mhm. ak boobu ma ko yëgee très tôt d'ailleurs dans la matinée de de dimanche dafa naa ci guddi gi la xew. Mhm. gëmuma ko woon parce que quand on ñu ko bind noonu j'avais pas d'image on a dit juste un grave accident avec 38 morts gëmuma ko woon. Mhm. mais quand j'ai vu les images ak sapeurs-pompiers alignés ñoom ñëpp ak yooyu je commencé à y croire bon quand même lii mosuma ko dégg Sénégal. c'est mm, bon lii arrivé comme ça man je pense que à mon humble avis damay sama xalaat rek laay wax comme d'habitude euh, bettu ma tellement. oui parce que Sénégal mooy réew moo xam ni maslaa bi dafa bëri. d'ailleurs d'après dernières informations yi nga xam ne am nañ ko ci dossier bi il semblerait que. propriétaire dossier bi ñu ñu moom kii bi bis bi ñu ngi la téye mhm. les raison mooy peut-être kii ku doon dawal bis bi amul sax permis de mooy permis pour dawal bus bi mhm. beneen bi ñu ni y des usures mooy yoo xam ne pneu yi baaxul. Mhm. xam nga yenn yi bu ñu koy wax. on a l'impression que Sénégal bi ñu nekk amul ñu nekk ci tali bi. musuñu gis ces chauffeurs là yuy dem di dellu si muñu leen arrêté musuñu xool carte grise musuñu xool permis bi musuñu dara je parle des forces de l'ordre mhm. parce que loolu ki kenn mënu ko xalaat mhm. euh, le chauffeur d'ailleurs l'un des conducteurs qui est très connu pour joxe ay leçons pour vraiment conscientiser ñi ñi ci dawal bi il semblerait que oto boobu tamit euh, le chauffeur n'avait pas de permis D mhm. permis C la yor pour dawal mais je me demande mais est-ce Eh, c'est scandaleux c'est c'est problématique yaa ngay wax ni bon nekkoon naa ci transport effectivement yàlla def na même su fekkee je suis avocat jot dénkoon nañ ma li nga xam ne dem ak dikk bi la ci Dakar li ko wër ba mu dem Sénégal dem bitim réew mu Afrique dem dikk mm-hmm. mais rigueur parce que wolof Njaay nee na dóor ci defar la bokk il faut être dans la vie ci yenn affaire yi waa dem dikk ñi nga xam ne ñu ngi may dégg ñu ñu fa nekkee di leen doon wax lu war a am pas ah, ñoom la ñu bëgg a def. parce que la plupart des conducteurs yu ñuy recruter xam nga ñu ngi jóge woon ci informel bi. Mmh. mais dès qu'ils entrent dans la grande maison du transport public mooy Dakar Dem Dikk dafa am règle yoo xam ni moom la ñuy tëral ñu koy respecter temps de repos. ñaari chauffeur yoo xam ni seen permis c'est clair et vérifié seen état le fait que déjà repos yi yooyu yëpp am je pense qu'on les a dans des conditions yoo xam ni. pour mais mais côté lu des wala yenn faay yuy tax tey ba sénégalais yu bari di tourner vers euh, privé bi. mën na am mun na am ça c'est vrai parce que l'imperfection est humaine mooy lépp daal nekkul loo xam ni c'est parfait loolu c'est vrai mais am na yoo xam ne gis nañ ko fii man lu ma tax yenn yi bettuma tellement c'est vrai que ça m'a surpris au nom du choc de 38 morts mmh. d'un seul coup ba tey ñu ngi ci 41. Mmh. et ñu ñaan yàlla mu yem fa mais mmh. c'est c'est am na yoo xam ne gis nañ ko fii. ay bis yoo xam ne ñu ngi tàngee ba di waaj a daanu am na bis ñoo xam ne ñuy romb fii sorti mbaaw di arrache ay pont dama ne est policier que les policiers n'ont pas mm-hmm. donc loolu dafa fekk ni l'État moo war a jël responsabilité parce que mënuñu nekk ci benn réew moo xam ne dañuy moderniser di bàyyi ku la neex def lu la neex jëndeek nu ma neex dawalee nu ko neex et puis on voit des jeunes kii ma le volant chauffeur bu la yëndoo ñu seen sous-vêtement wala presque yaramu neen mm-hmm. mais j'ai vu des gens di lekk maafe ci ci ci volant bi te loolu yëpp les gens le voient. Mm-hmm. donc je pense que oui, même il est voilà mais je suis surpris quand même que sama grand frère le président Macky <laughs> au moment où aujourd'hui mi ngi waaj a dara dina rupture c'est pas maintenant il fallait le faire dès le départ mhm. et je pense que fa lañ jëm il faudrait les hommes qu'il faut ou les femmes qu'il faut pour que yëf yi jaar yoon et balaa may jox Mouhamed en parlant d'hommes qu'il faut euh, tey ñu bari ñu ngi réclamer à ce que euh, Mansour Faye soit que mu démissionné wala que président Macky Sall euh, euh, tekki ay ndombol tànkam ndax bu partagé cet avis là. bon man euh, xam nga reddition de compte ak ju la joxee responsabilité dafa war am fépp fu ñu la ko mën ci jox. Mm-hmm. parce que boo ko xasee ba accepté da nga war a nekk koo xam ni am na yoo xam ne bu xewee da war a abale mm-hmm. pour la dignité mais Afrique moom on ne connaît pas de démission. Mm-hmm. bu fekkee def nga dara loo xam lu rëy ñu def démission. Euh, am na la fi xewoon nag teewoon na rëy na lool certes mooy disparition de bébés. Mhm. je pense que de l'étranger le président de la République la jël décision pour mettre fin aux fonctions du ministre de la santé. Mhm. te ministre de la santé am na ñu nekk ci ginnaawam gën ko jege dossier bi au niveau parce que échelle la hiérarchie la ba egg ci infirmiers yi fa nekk yëpp nekk des fonctionnaires. Mhm. mais malgré ça je pense qu'une décision tey mu ñëw l' accident le plus mortel au Sénégal sauf mu am beneen boo xam ne xamuma ko. ñu naan masak euh, président bi jëlul mesure concernant ce ministre là euh, qui lui est proche mais c' est pas une raison gis nga deret ça ne veut rien dire il faut quand même ñu respecter li nga xam ni euh, reddition de compte la et puis que moom sax moo waroon jóg war a bàyyi balaa président di jël décision alors maître Euh, Khady mi ngi koy wax euh, sànq ba it yow rappelé nga ko mooy état dafa war a jël responsabilité euh, bokk na ba mbir mi amee mu ñu woote conseil interministériel ca Diamniadio ak acteurs yëpp et on on se rappelle que en 2017 conseil interministériel sur la sécurité routière amal nañu ko en 2019 également amal nañu ko 2023 ñu ñëw dàbbaliwaat ko. et 2017 2019 entre ces temps-là. Mhm. gis nañu ne dara changé wul. alors 23 mesures la ñu jël ci conseil interministériel bi mujj les euh, mesures yu ma woowee man les mesures de les 23 mesures de l'espoir xëy na. peut-être dina am impact ci euh, sécurité routière bi alors euh, ndax jàpp nga ne euh, conseil interministériel mën na saafara lii xew exactement ci Sénégal concernant wàllug accident yeeg yi. bon maa ngi saluer mesures yi ah parce que su fekkee lu baax moom di koy saluer ne lii moom peut-être yéex na mais c'est des mesures qu'il fallait prendre. Mhm. mais comme ni nga ko rappelé 1er février 2017 il y avait déjà des mesures prises yoo xam ne sur des allant dans sens boobu. Mhm. mais application Sénégal c'est moins l'existence des textes que leur application bu ñu ko xasee ba defar fàttali nañ ko ñu ngi ci yeneen. Mmh. donc il faut des choses graves yu am yi ñu doog a yeewu di naan bon lii on va faire ceci. Mmh. c'est ce qu'on appelle les médecins après la mort. Mmh. je pense que un État doit être prévenant anticipant. di di anticiper ci yenn affaires yi xam ne lii risque mi ngi fi risque mi ngi fi mais c'est ce que nous faisions. Mmh. ñun boobu ñu nekkee à Dakar Dem Dikk. Mmh. Euh, mosu leen fa dégg accident mortel interurbain sur des choses comme ça concernant mmh. Dakar Dem Dikk. c'est la raison pour laquelle formation bi aussi di ñaan également la presse. les télés. ci émission yi may gis yëpp ci yenn émission ci yenn affaires yeeg dans la culture sur aussi je n'ai rien contre certaines émissions euh, ma tudd ñuy naan ah ñun tudd nañu mais daañu xam mais il est temps que mu am ay émissions de sensibilisation sur le transport sur mhm. euh, la sécurité routière surtout parce que loolu am na solo mais boo gisee ce qui se passe euh, même dans la ville ici les gens transportent transportent ay xar ci wala nga ñëw dugg ci oto boo xam ni ni nga ci toogee boo xoolee ci sa tànk yaa ngi gis tali bi boo xoolee ci toit bi yaa ngi gis asamaan si mm-hmm. boo xoolee sa kanam sa gis arbre xar muñ ci takk en même temps que les êtres humains mm-hmm. te pourtant ça passe devant des forces de l'ordre mm-hmm. je qu'il est temps de defar bu baax en sanctionnant d'accord et en verbalisant alors même le sénégalais lambda day wax rare ñu gis bisu Dakar dem dikk def choc wala def accident alors loolu rappelé nga léegi li tax mooy peut-être am na formation ak yenn ci ay préalable yu jël est-ce que ces mesures du duñu ko euh, proposer ba yaatal ko ci euh, secteur transport bi ba ñu mën a jël le modèle euh, Dakar dem dikk parce que quand même quoi qu'on puisse dire rare ñu gis Dakar dem dikk bu def choc. il faut un état fort dans une démocratie où du libertinage dañu naan liberté. soo gisee ay oto yoo xam ni depuis quarante cinq ans ñu ngi daw fii gis nga ko ji oto yooyu ma lay naa boo xoolee su gis tali bi ne yëkkati sa bopp gis asamaan bi vous hmm. voyez que c'est des choses yoo xam ni qui sont là hmm. il semble un peu contradictoire nag ñu interdire lu ëpp huit ans pour mu dugg fii hmm. mais on les des voitures de quarante cinq ans di fi daw chaque fois ñun le renouvellement du parc doo gis dara vous le voyez

donc c'est ça raison mais nag koo ci kii mu ne dama ci jàpp rek mais da si jàpp mais aussi tu mets en danger la vie des gens. Mm-hmm. donc loolu état moo war a jël responsabilité alors parlons transport transport laataa ñuy tàbbi ci beneen poñ xëy euh, le nouveau directeur de Dakar Dem Dikk ba nu ko falee dañu gis ne dafa daf la ñëw seet si alors ñu bëri aussi rafetlu ko ñu bëri jàpp ne peut-être résultat bi nga defoon à Dakar Dem Dikk moo tax mu ñëw seet si la est-ce que mu ngi dikkaat ci péripétie rencontre boobu. bon que ku nite la rek moo jóg. xool ni liggéey bu ñu fa def ñëw rendre ma et ça s'est fait de façon très naturelle et je le salue et vraiment c'est quelqu'un qui a fait preuve de d'homme d'État tu es venu me voir euh, mon grand frère euh, yàgg naa gis say affaire même boobu ma nekkulee dem dikk aujourd'hui gisoon naa la et puis voilà euh, yàlla def ma ñëw dans cette maison là damay ñëw nuyu ñëpp donc c'est ce qu'il a fait le plus naturellement au monde mm-hmm. am na ay conseils yoo ko pour la bonne marche de <laughs> de la société bon nous sommes des jeunes nous sommes des managers bon bu il trouve utile mm-hmm. de m'interpeller sur certaines choses xam nga ni ma y a pas de problème Sonko. mais je ne suis pas là pour le gêner je sais qu'il a sa vision. Mhm. et qu'il réussira sa mission loolu laa koy ñaanal. absolument mhm. ah, alors balaa ñuy dem ci beneen point bëggoon naa taxaw ci mesures yi nga xamante ne Mouhamed doon na ko tudd léegi euh, ndax mesures yi nga dégg jàpp nga ni ay mesures yu réyalisable la ci diir bu gàtt et que dinañu ko mën a topp également ci long terme bi. non à court terme ça va être très difficile à appliquer parce que Sénégal mooy réew moo xam ne tamit y a beaucoup d'indiscipline. beaucoup d'indiscipline mhm. et beaucoup d'intervention quand quelque chose te passe un gendarme va arrêter quelqu'un nga dégg un de fil qui va arriver ne ma laisse le passer doo xam fu mu jógee mhm. donc soo fi nekkul au top ci kaw management bi de la gendarmerie ou de la police xamal ne tu subiras des sa mesure da nga koy plier te ko fële mhm. donc ce sera difficile de l'appliquer euh, dans le ici et dans le maintenant man na être à long terme sensibilisation et wax leen dëgg def ay réunion wax ak ñoom chauffeur yëpp mais koo ci gis intérêt boppam lay xool xoolul intérêt réew mi mhm. et la sécurité des gens fii li lii la as jàpp rek lii laa ki kii boo ci nee nii ñu dem wax ko boole la foo xam ni <laughs> buñ la bu ñooñu wootee su mooy euh, ça passe il a des véhicules qui n'ont pas leur place dans la circulation je le dis mhm. et di ñaan yàlla ces mesures là vraiment soient suivies d'effet enfin Mhm. alors yenn mesures yi euh, yenn euh, conducteurs yi jàpp nañu ni euh, mesures yoo xamante la xëy na gouvernement bi dafa topp émotion bi bëgg a calmer yëf yi bu ci mel ni porte bagage yi nga xam ne dañu naan dañu nekk nañu ko jëlee ci oto yi ñoom ñu jàpp ni que non seulement c'est impossible peut-être mais ci askan wi lay gën a metti ndax mënuñu fay paas dugg ci bus fayaat feneen pour seen ay bagages. moi je trouve que nag dans un état encore toujours fort. ñoom ñoo war a réglementer les tarifs. ak encadré ko ministre du commerce ici. Mhm. encadré mais quel que soit de tel à tel kii selon le type de véhicule passe bi temps la. Hmm. mais pourquoi chacun fait ce qu'il veut. vous voyez que par exemple bu amee événement dans ce pays muy gàmmu muy màggal muy 31 euh, décembre euh, Noël muy lépp vous voyez les gens renchérir quand ils veulent. Mhm. boo bëggul ñu la taxawal fële kii moom day fay plus. c'est vrai. loolu mooy anarchie mooy y' a plus de xam nga temps yooyu nekkee xale ñun dafa amoon contrôle économique. Mm-hmm. bu ñu ne géej ci quartier bi ñëpp jaar fii jaar fële mais yooyu vous voyez ça n'existe plus. il a fallu que l'autre jour sur l'histoire des prix avec la vie chère que ñu jéem ko def mais fàtte nañ ko ñu ngi jëm ci leneen. Mm-hmm. c'est vrai que on ne prend pas des mesures euh, objectives sous l'émotion c'est vrai. Mm-hmm. et la on voit que c'est sous l'émotion que des mesures ont été prises mais tàngalaat la quoi. on le voit. maintenant ñaan yàlla ko ce soit appliqué. amiin alors euh, avant accident bi euh, li sénégalais yi doon gën a waxtaanee mooy rapport Cour des comptes. on en a parlé pendant des semaines mm. euh, sénégalais ba ci sénégalais lambda bi ku ci nekk bëgg que yoon def liggéeyam ñu apporter la lumière par rapport à ça euh, FMI nag moom itam ñu àddu ci ñu xam ne que ñoom ñu ngi ciy topp bu baax mais ñu mm. rafetlu liggéey bi nga xamante ne moom la ñu def ci boobu les rapports contrairement à certains ministres yi nga xamante ni euh, dañu dañu génn désavoué cour cour des comptes mais ñu gis ni boobu ba tey amul kenn ku ci génnaat tontu FMI wala nga def démenti mu mel ni que a jox gëdd que euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk euh, di di di saytu yu ni mel. effectivement li ma leen wax rek sànq mooy la reddition des comptes bu ñu la joxee dara loo xam ne askan bi ko moom. alalu mhm. askan bi. Euh, y a eu beaucoup nag de recommandations mooy ñëw nga feu rouge waroon nga virer à gauche mais pourquoi nga virer à droite tu as expliqué xam nga tout rapport de la cour c'est un rapport contradictoire di mhm. nga jox borom ku mu concerné. mu def ses observations provisoires après nag ñu doog a def le rapport définitif je pense ku nekk jox ko say explication mais malgré ça au, au, au final la Cour des comptes a décidé que pour certains cas pour certains cas il y a eu des choses graves qui sont passées léegi nag euh, sur la base de c'est une cour hein la décision ou bien même du rapport de la Cour il fallait juste faire lu loi bi wax ñu topp ci mais euh, jël un rapport di faire le rapport du rapport par le premier ministre ça fait désordre vous vous conviendrez avec moi. Euh, lu set kenn du ko raxas boo ko yéemee raxas da nga koy jë koy gën a tilimal. Mhm. moi je pense que la cour a fait son truc maintenant il fallait juste aller devant la cour soit la chambre de budgétaire wala dem loo xam ne c'est du pénal pur mooy devant le tribunal correctionnel lorsque des choses graves ont été euh, gis nañ ko ci mbir mhm. mais nag euh, c'est vrai que y a des affaires yoo xam ne moom bu waar na waar. <laughs> alors tey ni que dinañ ci euh, yëf yi dina mujj fenn. am naa ci yaakaar waaw am naa ci yaakaar parce que comme ni nga ko waxee FMI moo ci laxasu bu fekkee c'est une affaire sénégalo-sénégalaise <laughs> on sait. Mhm. il y a yoo xam ni conc moo ci togg. bu tonc bi conc bi jógee rek su waay mu doy waar. ba nga xam ne sax ñi nga xam ne seen dossier mi ngi fa bëgguñu sax. ki teg fa conc bi jóge fi dafa ñu bëgg encore mu def ad vitam aeternam parce que bu fiy jógee ñu këf leen donc vous voyez aussi il y a des explications pour ñi nga xam ne bëgguñu le président Macky Sall jóge fii en 2024 conformément ak lu mu signé woon ak sénégalais yi ak constitution bi mais il est clair que aussi euh, man am naa yaakaar ni bi yoon dana am lu leer parce que FMI mu ngi joxe xaalisam mi ngi surveiller waaw mhm. ah oui qui finance surveiller mu ngi surveiller moo tax ku nekk mi ngi ne tekk kenn ñëwul fii sax si ce plateau jéem a expliquer man boobu ñu ma waxee samay affaire boobu may pare li may liggéey je suis j'ai été à la une pour répliquer coow li ne fin parce que <laughs> loolu la donc euh, ñu xaar tamit euh, lan la ñuy indil euh, bientôt sur les rapport de la Cour des comptes concernant les les les, les organes euh, ku nekk wax li ngay wax mais man moom xam nga ne Euh, je m'explique mi ngi noonu laata la laata ñu yegg justement ci euh, lan la euh, conclusion yi di wane par rapport ak suite bi ñu war a jox rapport yooyu mhm. maître naka ngay jàngatee li nga xam ne moom la ñu doxalee ci ngabinu fonds force covid 19 au moment où sénégalais yi sonn nekk ci situation bu métti ñu gis ne am na ngàbbin wala yorin bu bon ci koppar bu nga xamante ni ku ne participer na ci aujourd'hui tey rapport bi bu ñu duggee ci détails yi di nga gis ne ay manquement ak it ay recommandations yoo xam te mën nañ ko éviter euh, daan ko ci gis alors naka nga jàngatee euh, ci euh, gestion bi tukkee ci surtout ñi nga xam te ni ñoo ŋànk ñoom la ñu jox. bon ni ma ko jàngatee c'est simple parce que boobu affaire bi génnee. ñenn yi dañoo jóg ne ni la plupart de Sénégalais. Mhm. scandalisé wu ne pendant que ngeen naan te restez chez mhm. il y a une destruction massive. Mmh. voilà euh, une prédation des biens publics. Euh, ñu jékki-jékki moom mooy première phase deuxième phase bi ñu jékki-jékki dégg ministre des finances génn di def ay chiffres. Mmh. di min c'est une manière de minorer le, le, le, le caractère grave. Mmh. de ce qui s'est passé. 0,7 pour cent même pas 1 pour cent des mille milliards. Mmh. am na loo wax léegi nga dafa am benn parti boo xam ne sénégalais yi góorgóorlu yeeg euh, jaaykatu caaf yeeg suñu maman yeeg yooyu non ñoo cotiser seen biir mhm. les particulier ñi nga xam ni dara xew na mosuñu fi am ñu am ne ni c'est ñoom ñoo cotiser ba mu mat presque dix-neuf milliards et quelque muy vingt milliards mhm. ci cotisation yooyu euh, la xalif général des mourides defe naa jox na si deux cent millions euh, ñu bëri joxe nañu man structure bu ma nekkoon sax joxe naa mhm. ci vingt milliards yooyu bu fekkee xaalis sénégalais yi ay zéro virgule sept pour cent la ñuy wax di ñoon six milliards et quelques jël nañ ko ci. c' est pas essayer de ñu maquiller avec les mille milliards moi le mille milliards les mille milliards dafa naan waaye FMI ak ñi ngi doon c'est les partenaires techniques financiers ci daañu ci wax li ñuy wax baax mais dans tous les cas là ou il y a des choses graves il faudra quand même sévir maintenant la présomption d'innocence est là comme que ñu ngi ko jox euh, justice mu ñaan yàlla justice fekkee cour bi lu mu wax parce que tamit ce sont des magistrats qui sont là concernant la gestion des biens publics bu fekkee lu ñuy wax se confirmé par la cour que les mesures s'abattent mais am na ñoo xam ne tamit waroon nañu appliquer lu ñuy naan la jurisprudence euh, Mamadou Seck mhm. alors euh, cour des comptes na euh, nañu liggéey bi en tout cas FMI au moment où certains ministres ñu épinglé wala ñenn ñi di jeter le discrédit Khady mi ngi koy rappelé léegi est-ce que loolu dina dooleel sunu ay euh, corps de contrôle nga xam ne dañ leen soxla lool ci wàllu euh, bonne gouvernance ak transparence ah dafa am benn ministre bu sànni le discrédit sur le. ah oui mais am na ñu ci génn di wax ne bon cour bi euh, voilà d' accord ñu ci lu ñu joxe. kookan la. ba je sais pas mais daal am na yaa ngi ministre monsieur maître nag yaa ko gën a xam. waaw <laughs> euh, xam nga boo caxee dara dama bëgg a. mais yow yaa ko gën a xam ah, yaa ngi au diapason de de l' actualité. c' est pas Mansour Faye. <laughs> Hmm, Mansour Faye ci la bokk. confirmation donc waaw. moi à sa place je n'aurais même pas en tant que le beau-frère du président di mhm. sànni le discrédit sur benn ins benn euh, organe judiciaire bu fi nekk mu nekk cour des comptes bi di leen traité mhm. de politicien pourquoi parce que tout simplement nous sommes dans un état comment on peut jeter mhm. le discrédit sur des organes ou institutions de l'état en tant que euh, euh, ministre du gouvernement même s'il n'est pas d'accord avec rapport il y a une autre manière de le dire il ne faut pas dire que ce sont des politiciens ñun yàgg nañu defal ay rapport mhm. mais mosoo ma dégg may naan ay politiciens damay ne d' accord ma et jamais des preuves montrant que li ñu bind fii la page telle d' accord ma ci et jamais des preuves contraires c' est ce qu'on lui demande il y a une surfacturation présumée de mhm. deux milliards cinq cent c' est pas des millions. mbay ñu ne ko yaa ko def mais nga dem wuyu ji rek leeral moo gën ngay wax c'est tout man ma fa laa ko jàpp. waaw ah, parce que mënuñu fi teg tamit des gens comme ñu ne OFNAC gars yi di jàpp di saaga OFNAC di wax ay kenn xamul ni par exemple les images de l'OFNAC porte ay images yu benn parti politique la xam nga yooyu en tant que président Macky bi la fa teg créé OFNAC pour ñii nga xam ni ils sont venus après 2012 nga ne OFNAC c'est la couleur d'un parti politique en tant que ministre de l'État mm-hmm. c'est-à-dire qu'il y a des choses yoo xam ne nit munu ko comprendre ko donc euh, un peu de retenue et que dem wuy c'est ça le plus important pense c'est pas pour certains nag c'est pas ils ne sont pas à leur coup d'essai euh, le président dafa waxoon ne euh, ba muy ñëw CREI peut-être am na ñu mu ko créer mais OFNAC boobu nga tudd ñoom pour ñoom la et que du protéger kenn koo xamante ne ni luubal na wala def na naka su lu noonu ce qui semble ci ci ngàbbinu réew bi loolu jàpp nga ne mi ngi ci yoon bi am déet je ne ce qui n'est pas le cas parce que fii quand même le kumba am ndey ak kumba amul ndey ñu ngi gis j'en suis victime moom mm. parce que man sama professeur boo mu duggee ci classe bi dafa ne taisez-vous sur telle question voilà. Mm-hmm. ñenn di naan Ilimix. <laughs> te dafa ne woon taisez-vous. Euh, ce professeur c'est-à-dire. <laughs> mooy ne sur telle question sur le troisième mandat boobu lu ñenn ñi nekk ci biir classe bi di wax. on a entendu sama grand frère Boun Abdallah Dionne Ilimix on a entendu Mbaye Ndiaye on a entendu d'autres mm-hmm. di wax mais dégg na ko parce que ça l'arrange. woo dóorul mais dafa am benn xale bu terrible bu nekk ci boor bale ne moi monsieur mun ko yow moom mu wax ko loo xam ne c'est juridique mhm. c'est moral c'est politique c'est pas faisable mhm. mun na ko sortir de la classe jeex na mhm. loolu donc man xam naa luy kumba am ndey kumba amul ndey ensuite ñu ngi koy wax léegi ci transport bi que ce qui est arrivé à Diouf Sarr aurait pu si vraiment c'était pas le beau-frère du président man c'est mon la avis président am na lu ko yàlla may c'est un enfant béni kenn waru ko yàqal parce que boo nekkee chef d'état tu es au-dessus de la mêlée deret waru la pousser ba ngay jël ay mesures en fonction de x ou y y a des règles qui sont posées ñëpp dañ ko war a respecter moo tax man je considère que képp koo xam ni quelque que puisse être son statut fii gis nañ fi ay affaire yoo xam ni doy na waar euh, gis ku nekk jóg mais jël naa xaalis ba jox naa ko diw dañ ma woo il est où procureur la République certes il a l'opportunité pour poursuivre mooy su ko neexee pour poursuivre sinon mu ne du ma poursuivre jottali naa diw dégg ngeen ko ko wax Thierno Alassane Sall mm. dégg ngeen ko ko wax Mimi Touré mais rien ça ne bouge personne n'ose les convoquer même pour leur dire bon ku la nee convoqué ma kay yaa ko demande dama convoqué la sax lan la jox fit mais c' est ça aussi qui se passe dans le pays. li président wax na koo xeeb peut-être ci li mu wax ci rapport Cour des comptes bi que euh, jëbal nañu ko euh, premier ministre dina ko topp tey ñu ngi wax ne affaire bi tàbbi na ci loxol euh, procureur. Mhm. loolu waxoon na ko ci ab conseil des ministres jàpp nga ne. Euh, euh, deful li ko war par rapport ak euh, li xew ak. su ma nekkoon à sa place je pas encore donné ça à un chef du gouvernement à un ministre yooyu cour dafa naa ne la séparation. donc bu fekkee juridiction jël na ay décision nañu bàyyi juridiction de mais doo ko den ci waat si l'exécutif pour ñu xoolaat ko. day day am influence. mais je dis il y une manière d'expliquer les choses politiquement. mais aussi il y a une manière d'expliquer les choses juridiquement. Mhm. Les deux sont c'est <laughs> pareil. Donc moi je considère que cette affaire-là aurait dû être laissée ci côté judiciaire bi ñu def li ñuy def ku ñu waral woo woo la woo ku ñu waral woo bàyyi la ku ñu woo nga expliqué wu ku ñu yóbbu cour discipline judiciaire yóbbu la ku ñu yóbbu correctionnel yóbbu la. ku ñu ne tu n'as rien fait on s'est planté royalement ñu bàyyi la. d'accord yaa ngi yaa ngi déggante président Macky Sall. du ñàkk parce que man ñëpp lay waxal xam nga man na butu may dox est-ce qu'on peut s'attendre à à ay entre vous deux puisque. gis nga l'impossible le dialogue n'est pas gis nga l'impossible n'est français mais bu ñu ne ce qui est rare devient précieux gis nga ceeb bu fi baree léegi denrée bi prix bi bu fi raaree léegi prix yéeg dañuy mhm. ay toll foo xam ni malheureusement je dis bien malheureusement. gor ak fulla daf fi manqué am na ñoo xam ne seen privilège dong ko sa képp la ñuy toppatoo seen fauteuil seen voiture de fonction li ñu ciy jël ay privilège alors ko loolu war nañ ko jëlee comme sacerdoce bu ñu la joxee liggéey man ràng jël liggéey ci gouvernement bi wala yooyu ràngatuwuma j'ai mon métier. Mm-hmm. ku amul métier nag da nga tiit ah oui ñoom xam nañu. combien de personne personnes qui partage idée bi ma jël position bi ma jël mais n'osent pas le dire tout nit bu la wooyee ne la am nga télégramme nga ne ko la kii mu ne ma non dama la fay woo am ndombal tànk fii <laughs> mën nga tax doo ma woo normal mën ma wóorul mais da ngaa teel a wax da nga war a bàyyi bi yooyu nga doog a wax nga wax dëgg bi je me sens très bien là où je suis c'est vrai qu'on a essayé de ternir mon image ici dans ce pays mais pourquoi euh, tout dara marché wul sama grand frère nag mhm. il restera mon grand frère mais sur la base de certaines choses man dama mel noonu ci dëgg laay dee commencé naa en politique avec sama grand frère Ousmane Ngom dans le parti libéral sénégal boobu ñu naan tas na tasul avec la manière mu naan retourner à la maison du père j'ai pris mes responsabilités te dafa dugg ah ak a neex topp mhm. temps yooyu nag c'est le wadisme mhm. mais j'ai dit non je vais pas wàccu dara bu ko naanaat te dara changé wu fa. mais est ce n'est pas un appel du pied nag maître. est ce que est ce que du appel du pied def ni peut être. non non moi je vous savez. oui ku la clin euh, ma ne président Macky Sall. gis nga man su ma bëggee jël samay décisions je les prends mhm. lan moo ma boole sama président sama sama grand frère Macky Sall. Mhm. c' est une question mais je réponds. Mhm. c' est le troisième mandat non du leneen. man lu ma koy conseillé moom bañ ko def. mu bañ ko def mu leeral Sénégalais yi à temps parce que tamit loolu la ñuy di xaar. loolu moo lëb loolu moo lëb tey nga gis ni que il est entouré pratiquement. par des transhumants peut-être la majorité euh, voilà ay transhumants ak ñoo xamante ne dañu koy et des troubadours <laughs> c'est vous qui le dites euh, ñoo xamante ni dañu koy pousser justement euh, ci le fait que mu ut une troisième candidature ñu ci ñu ci bari en tout cas ñu ngi génn di nekk moom la ñuy investir. vous l'avez vu ñëpp a ngi tëb ki dal ay dem grand théâtre kii fii da koy nekk par force. Mhm. bu ko nekkul ñun dañuy de mhm. yow yaa fi sës mais c'est quoi ça xanaa du ñooy góor. mais est-ce que nekkuñu seen droit aussi. ah parce que coalition ci coalition la ñu bokk ak ci parti am nañu droit. ne diw mooy sunu candidat bu fekkee droit nga wax de. Hmm. waxuma droit d'un parti de dama ne droit ci réew mi. waaw damay rappeler. Euh, sa Diop. Hmm. damay rappeler ñun boobu ñu bëggee réew mi. en 2011 maa ngi ak président Macky Sall toog xaaruma ba mu toog. ma ñëw absolument moom xam na fu ñu jaar ba mu nekk fu mu nekk. dañoo xeex troisième mandat fii ba ay bakkan rot fii. l' avant dernier intervenant à la place de l'obélisque le 27 janvier 2012 bi président bi conseil constitutionnel joxe décision am ne président Wade il sera candidat l' avant dernier intervenant c' était moi. ñoom moom Diop. Mm-hmm. vous vous souvenez ñoom Fodé Ndiaye. Mm-hmm. ak d'autres et d'autres. non à un troisième mandat vous avez très bien entendu toutes ces vidéos nous avons ñoo àndoon. Mm-hmm. ñu génn Sénégal Dakar wax ko Sénégal yépp yàlla mooy joxe nguur jox ñu ko. donc xam na li ñu doon xeex. sauf ko ba conseil constitutionnel waxee waxee ne lii lii la ñuy def. Mm-hmm. dafa bàyyi xeex baak yi ci mel dem campagne moom le président Macky Sall. comme quoi nangu na décision bi conseil constitutionnel. Euh, oui oui et oui. oui moi j'étais dedans au mm-hmm. cœur. Mm-hmm. xam nga sa émission bi c'est très suivi aujourd'hui j'ai remarqué que ñëpp partage noonu je vois ministre yeeg ñëpp ñu ngi ci biir ñu ngi may dégg dama ne xeex boobu ñu doon def. c'était contre le troisième mandat. bien sûr te malgré le fait que. xeex ñu par comparé ak situation bi président Abdoulaye Wade su ko neexoon mu ne man j'ai été élu sur la base d'une constitution qui est limitée par les mandats. Mmh. donc bu ñuy appliquer la loi dans le temps ñu ne bon bii bokku ci. Mm-hmm. on le comprend il a été élu ci constitution 1963. ba mu yéegee janvier 2001 ñu def référendum ci nouvelle constitution moo fi existé bi léegi dégg naa nag yenn juristes yoo xam ne xaw ma école la ñu jàngee di la constitution de 2016 amul constitution 2016. xar yi maa ngi ñaan yàlla nga indil ma fii cinq avocats yoo xam de la mouvance présidentielle ñu expliquer Sénégalais yi bu kenn coupé kenn sur l'existence ou non d'une constitution de 2016 ak l'histoire d'un troisième mandat en donc j'ai rappelé nu lu ñu naan historique bi yi ñuy wax nag deux première chose ma wax sur le plan purement du droit 2016 lan la woon référendum bi porté portait sur la révision la la révision de la durée, je répète, de la durée du mandat. Mm -hmm. Ça n'a pas touché le nombre de mandats. président Macky Sall ba mu ba mu accueillir fii euh, le président Kaboré dégg ngeen ko lan la mhm. dont il était question c'est moins le nombre de mandats qui est depuis longtemps que la durée du mandat donc on a touché le 7 5 mais on n'a pas touché le 2 ñaari rakkaay moo tax juridiquement képp ku fi ñëw di naan la réforme 2007 dafa toucher le nombre de mandats raconte sa vie ça a touché la durée lu ñu jël sept yóbbu ko cinq mais du tax ñaari rakkaa ma def ko ci ci ci ci alxuraan rek gis nga julli tabaski bi nga xam ne sama président Macky Sall wax même booy imaam màkk mënu fi ñëw def ñetti rakk ñaar lay doon mm-hmm. bu fekkee rakka bu nekk juróom-ñaari kabar ci premier bi bu deuxième bi et dernier juróom du tax ñaar rek lay doon bu juróom ñaar bi gën a gudd bële c'est parce que ayatul kursi yi nga si dugal peut-être bu deuxième bi gën a gàtt peut-être que wala laa ko si dugg mais du ñu tax ñaari rakka la. mais maître bu ma la déggee kon d'accord ci le président Macky Sall posé troisième candidat. gis nga ñii di ko si dugal ñoo gën a xam ni bokku ci. yow d'accord yow d'accord nga ci. mais man je suis constant dans ma position. ok. mais connaissons l'homme parce que yaa ngi koy wax fréquenté nga ko euh, yàgg ngeen. Mhm. Euh, ak nga gis acte yi mu posé tout récemment ñi ñi nga xamante ne sa genre yi wax nañu ko mënu ko mu tekki sa nombal tànk ñi nekk mën nañ ko ñenn ñi sax euh, si ñu am yu gën a kawe. tey booy jàngat loolu yëpp ak ni nga ko xamee ndax jàpp nga ni président Macky mu ngi si yoonu ou troisième candidature boobu. les actes sont forts loolu moom c'est vrai mais je reste encore quand même que l' année deux mille vingt trois wax naa leen mais peut être leen euh, jëlewoo leen moon une année de lucidité dans la prise de décision parce que bu fekkee j'ai dit juridiquement bu fekkee politiquement position benn personne ci Sénégal moo nar a déstabiliser pays bi man suma nekkoon ci place am je recule je précise que ñi nekk fii aujourd'hui nekk ci nguur gi nekk ci acte yeeg yëpp issu du dernier baromètre des élections nationales mooy les législatives passées ne représente pas plus de 46 pour cent même pas la moitié des sénégalais votant les 53 ou 53 et pour cent de sénégalais yoo xam ne boobu ñu xoolee ñi nekk ci géew gi les huit aux législatives dañoo banque seen loxo dem naan seen ataaya loolu war leen jàngal lu bëri c'est la raison pour laquelle man je parle d'une majorité silencieuse man ñoon laay waxal mm-hmm. nañu jóg génn bu bés ba jotee ñu dem voté ji sans bruit ni pour rejoindre li nga wax léegi bu conseil constitutionnel validé parce que tamit dama bëgg wax ak sénégalais ci benn affaire kenn mënul tere le président Macky Sall def l' matériel de déposer man su ma neexee ma jël enveloppe vide defuma ci caution defuma ci parrainage tëj ñëw greffier bi moo ma recevoir il acte que j'ai reçu une enveloppe vide mhm. il n'a pas le pouvoir de décision de recevabilité ou d'irrecevabilité c'est le lendemain peut-être ne ah enveloppe vide sans parrainage irrecevable mais l' acte de dépôt ku nekk mën nga ko def kooku benn affaire la maintenant nag bu déposé mais ku la abalay bët fu mu xool fu mu fa ngay topp comment dans ce Sénégal d'aujourd'hui il faut que Sénégalais yi xam ne tamit magistrat yooyu ñoom ñuy naan nañ fa dem ci combat bi foofu nañu dem foofu parce que le combat peut-être les arrange là-bas ñu koy wax mais sept magistrats yi président Macky Sall moo leen nommé cinq directement de sur une liste de quatre yoo xam ni assemblée nationale moo ko moo ko proposé mais yëpp moo leen nommé mais xam nañu jàll risque quand même que ça soit validé maintenant bu ñu ko validé man je souhaite qu'on échapper au Conseil constitutionnel comme en 2012, mm-hmm. on va aller aux élections, nous battre et parler aux Sénégalais de la majorité silencieuse. Moi, je me revendique aujourd'hui de la majorité silencieuse. Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, sans bruit ni tambour règle problème bi 18 heures ñu ne Moussa Diop jël na yëf yi. alors on nous fait signe que waxtu bi xoj nañu mais Régis boo leen ñu mënee may juste une petite euh, question peut-être Mouhamed nga nga tëjee ko. alors juste pour savoir est-ce que en parlant de 2024. Euh, si vous êtes euh, candidat na nga ko xamalee woon ca ba nga génnee ci opposition bi opposition boobu sax bëggoon naa rek nga nga wax ñu ci également sa xalaat ak taxawaay bi ñu amee par rapport ak euh, li nga xam ne moo di actualité bi au Sénégal ak tout ce qui se tout à fait tout à fait xam nga man dama am chance bu chance laa ko jëlee ah par expérience parce que expérience chance la dans tous les cas mu baax mu bon mais tu as vécu des choses directement kenn raconté wu la ko. xeex naa avec d' autres bi président Macky Sall toog fii. Mm-hmm. ñu jox ma ma liggéey li may liggéey maa ngi sant yàlla. ñu fekk sama fekk ma sama kër l' opposition. Mm. par mon frère Ousmane Sonko. ne ma ah kii day jël na karawaas di dóor ñëpp te lii moom c' est de kumba am ndey kumba amul ndey. Mm-hmm. on voudrait quand même jaay sénégalais benn produit bu bees. Mm-hmm. avec une charte très bien écrite et tout cela. ma ma ma ma vérifier sama parti ñu ni ma pour pas. am nañu opposé wu am nañu d'accord mhm. ñu dem ànd ak ñoom àndandoo nag di nga koy teg ci lu leer ci wax dëgg ma nekk du côté état di wax dëgg même ñu nekk seen biir ñu def n'importe quoi. Mhm. j'ai commencé à sentir certaines choses bu ñu yoree suñu groupe WhatsApp ma leen di naan attention lii ñu ko def. parce que ngeen ngeen jour ñu def fi conférence de presse di naan bon euh, Khalifa Sall sera candidat par force j'ai dit bu leen yàq fi parce que xam ngeen carrément il est inéligible. Mhm. tant qu'il n'y a pas d'amnistie il ne partira bu ñu toogee aussi di di wax de wax yenn affaire man ko man bokkuma ci d'accorduma ci c'est ça aussi la démocratie interne. absolument mm. balaa ngay bale mbedd bi baleel sa biir kër. à fait mais il se trouve que apparemment je jeûnais lu ñu ñëpp bokk nag gor daf ci war a nekk ci kanam. coloré mm-hmm. mais vous avez vu au mois de mai deux mille euh, euh, mm-hmm. deux mille vingt deux deux mille vingt deux mille vingt deux oui qu'est-ce qui s'est passé. man dama toog rek ba gis au ministère de l' ñuy déposer ay liste à minuit ne ah Déthié Fall dugg na suivi danga yomb ñu suivre xamuñ lu nekk ci liste bi ce qui est anormal. gis nga ni bu la yónnee da ngay rendre compte balaa ngay déposer. defaral ñu liste bi ah da ngay defar dugal ko ci groupe bi ne bon hermétique waaw lii lañ def ñu waxtaan tuuti amande après ñu bàyyi mu dem. bokk ci conférence des leaders. ma bokk ci con a war a décider. je suis je de la conférence des leaders. tout à fait au même titre que. Khalifa Sall Ousmane Sonko et quelqu'un d'autre ñu déposé bi ñu toog cinq jours après ñu yëguñu ko ci mbedd ba la ñu foree feuille ba ñu ne ah authentique na de authentifié nañ ko. Mhm. man xo liir naa ko huit fois <laughs> gisuma sama tur. te ñu ngi jëmoon ci assemblée mooy fi laboratoire fu ñuy defaree ay loi man ma nekk homme de loi ñu dem jëlee ay étudiante bi liste ba daanu huit fois ma ne non sama parti kenn nekku ci huit personnes huit euh, quatre-vingts personnes qui avaient déposé mais noo koy jëlee ñoo waaxu ba sama kër jël si ma moment bu ñuy def loo xam ne war nañ ko partage de façon équitable mm-hmm. ñu ne Moussa Diop ñu si bokk parce qu'il nous gêne dëgg yi muy wax neexuñu mm-hmm. mais dama ne sama frère Ousmane Sonko bu fekkee moom rendiwul ñàddul joxewul paak mais il a regardé faire c'est pourquoi je lui en veux il le sait pardon da nga jàpp comme une trahison mais c'est une trahison c'est un complot xam nga boo nekkee ci complot ba nga ñuy ñëw yuuxu Sénégal yëpp complot yow waroo dugg ci complot di complot de contre parce que man sama vie sama avenir du ñoom ñoo ko yor dañu waroon ànd nag jëm fenn ñu ne doo ci bokk dañoo nar a dajee ci bunt ba déggoo ma de donc kon yaa ngi opposition bu ñu la déggee. man je suis aujourd'hui contre le troisième mandat. Hmm. Je m'adresse aux Sénégalais je ne suis pas avec le président Macky aujourd'hui et je ne suis pas avec cette opposition anarchiste. d'accord alors ñu tëjee ko foofu dañoo nar a euh, ci buntu ba mooy que di nekk candidat. incha allahu rabi. d'accord dans quelle coalition quelle modalité ci discussion la ñu nekk bëgguma pousser trop ci loolu parce que ci waxtaan la ñu nekk avec beaucoup xam ni coalition bi mun naa jox tur bi ànd góor jot na. ànd na merci maître maa ngi di remercier di ñaan yàlla également que comme ni ma ko waxee léegi rek jàmm euh, nekk ci Sénégal pour l'éternité parce que sans la paix y rien mm-hmm. ñu ngi jëm aussi ci ay situation yoo xam ni nee nañ fu am pétrole am gaz day bëri bruit donc dama bëgg daal xel yi dal voilà ñu bàyyi yéen te ñu occupé wu ci des choses les plus importantes man le président Macky Sall mon grand frère encore une fois parce que moi je suis pas haineux parce que si vous voyez ce qui m'est arrivé dans Yewwi Askan Wi avec Khalifa Sall parce que j'avais parti de la caisse d'avance affaire xol un homme d'état xolam warul nekk ci poitrine ci bopp bi la war a nekk mm-hmm. la hauteur donc di xam ni sama président Macky Sall aussi suñu président Macky Sall yàlla lu mu ko may mayu ko benn sénégalais à ma connaissance sur le plan politique nekk de Fatick de Fatick nekk directeur de structure de nekk directeur général de Petrosen mhm. nekk DG de euh, ministre des mines ministre euh, de l'intérieur nekk euh, premier ministre nekk président assemblée nationale nekk président du Sénégal nekk président de la CEDEAO président de l'Union africaine ñedd bol bi. bu ko gars yi troubadour yooyu pousse ba bilan la grande porte laa koy ñaanal et non la petite fenêtre. merci beaucoup maître euh, merci. di remercier sunu invité euh, maître Moussa Diop. Mhm. Euh, voilà yooyu la ñu leen di jox rendez-vous ci seen show lundi incha mais ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme léegi.